gis en en euh, voilà à côté rouge et rouge mm. et tout ça par rapport à ce donc man man est lu si vous me ma d'accord souvent à Kader voilà euh, je je vous laisse poser la question non allez-y allez-y alors fi ma dul d'accord Kader souvent moi, peut-être ci vous yi nga xamante comme exemple aujourd'hui euh, exemple bi gënoon patent bu en ce qui concerne les vidéos et les audios moo doon ci procès bi mm-hmm.

ça profite plus à l'accusé que euh, à nu euh, qui maanaam ki accusé ki accusé que Sonko. donc démb ñoom ñoo fa nekkoon di dérouler. Mhm. am nañ possibilité denc seen i ay preuves parce que procès bi mën dem appel su fekkee ne si dem na appel liñ fa wax yëpp. non non non non non non rek non laaj la rek ma ma koy nga preuve jarul xaar appel. xam nga xam nga diffuser les vidéos. est-ce que loolu aussi sax bah, non ça bon avec tout le respect qu'on mais aussi c'est c'est la parole de de d'un avocat.

parce que man gëm naa ni vidéo am na loolu man la engagé léegi nag su fekkee vidéo am na mu ñu ko diffuser foofu suba bu fekkee ne seen nii parti wu ko def nañ appel mais liñ jotta wax dembu ci procès liñ non attends attends attends liñ jotta wax ci procès bi yëpp lépp ay non même ma daaneel non même ma daaneel parce que aussi am nañ possibilité mu su verdict bi génnee euh, le premier. Sonko ak ses avocats am nañ droit def appel. su fekkee dem nañ appel bu boba liñ fi wax yépp day effondre dañuy delluwaat reprendre tout donc bu boba nak kenn ku ci nek la nga am ci ay éléments de défense. mën nga génnee pour. alors waaw waaw waaw fi ma doon waxee fi ma doon waxé ak ak Kader

vidéo bi ñu bari bok jot nañ partage ni ko c'est une vidéo d'une petite minute qu'un mm-hmm. xamul ban endroit la qu'un xamul ban bërëb la personne n'était sur le lui mm-hmm. ils étaient ils étaient pas en train de travailler dañu doon synap sen bop mm-hmm. loolu lañu gis maintenant cette vidéo mën na nekk fu nek mën na bu nek on ne peut pas peut-être aujourd'hui vérifier wala am lu leer ci l'authenticité wala fan la défé faits vidéo parce que aujourd'hui débat bi fiñu tollu tay moy rek dañuy revenir at en arrière mooy ce euh, jugement yow jugement ken am na ñu bari ci Sénégal bo leen néwon woon bobu buñ fa dem deug rek la yalla bëgg mhm. duñu dem ci bërëb bobu nga xamné ne dañu fay mais maintenant ki fa dem ak la la fa nek aujourd'hui je ne pense pas que débat bi yegg nañu fop le débat c'est on parle de viol sur une jeune fille ndax aujourd'hui on a les preuves yi nga xam ne mhm. mën na firndeel ne il y a eu viol diggante Ousmane Sonko ak Adji Sarr ndax li génn démb ci tribunal bi indi na le plus man j'attendais plus et je l'ai dit mhm. si li nga xamantene mom mo am demu tribunal j'attendais peut-être li ñu doon wax diko ko munti nga koy dégg par curiosité sax nga dégg wala nga gis lu la leer pour que nga am fondement parce que mbir mu jaral leeral la li dafa war sax di nekk loo xam dañu ko warona a pëxam përëx ni ni ñu dem juger ko sans défense même si ce sont c'est Ousmane Sonko mom mo ñewul ses avocats mënuñu ko won teewal. parce que mais mais selon les dires selon les dires de Adji Sarr viol amna pour mom parce que nee daf ko. mais delu a ci propos yi. tëggal ko ci table def ko ni def ko nële. donc Pouye on va pas revenir sur ça. gis nga li nga dégg li mu wax parce que comme y avait pas Sonko aussi mënuñu am. on ne peut pas faire du surplace depuis 2019. c'est ça Adji Sarr nee Sonko da koo violé loolu passé nañ ko xam nga demb lan la woon. parce que parce que tamit fi bo jiiñee soo il y yow une indi preuve. Mhm. Ousmane Zongo n'est pas obligé d'amener des preuves hein. même pas yow a c'est à toi de sortir les preuves pour voir effectivement li ma noirs wax donc c'est pourquoi je n'ai pas compris s'il y a est-ce qu'il y a vidéo moi je me pose des questions <laughs> non non sincèrement non non non non parce que Demb, c'était le moment pour pour pour pour l'accusatrice quand même vraiment mu génne les mots am tes ko pour convaincre juge bi mais est-ce qu'il faut obligatoirement ñu vidéo pour que nous mais mais mais elle sur non on est obligé pour je te réponds parce qu'il y a combien de viols yoo xam ne si nit am na te vidéo amul donc on n'est pas obligé li ñuy gëm moom mooy selon ñaari papier yi ñu wax aji bu ne violé nañ ma moom moo wax y avait pas Ousmane Sonko pour se défendre on aurait bien aimé que Ousmane nekk sur les lieux pour se défendre pour ñu mën comprendre effectivement démentir na li Adji Sarr wax yëpp mais là mais affaire yamul ci yamul ci mais mais xaaral rek yamul ci du démentir ah So accusé c'est à toi d'apporter les preuves. Mes preuves de ton accusation c'est-à-dire du question ay man que nga accusé ma man ma di démentir. mais yow bu démentir Lamine Lamine la accusé Ousmane Sonko violé nañ ma tel jour le fi la amé lieu bi la. d'abord un deuxièmement il def prélèvement accuser quelqu'un ne peut non non attends Je ñu d'accord dama lay wax rek pour ñetti affaire ah. mu ne ma violé tel jour. tel heure tel lieu. Hmm lieu bi d' day définir fan la tel jour am nañ date léegi nag pour confirmer viol bi amna test buñu def ci mom ñu gis ni kat amna amna ay balma voilà lu ñu gis ci bon boo boolee loolu. nga pour démentir ni man dew ma fa bi. alors pour ñu avancer ñu avancer parce que il faut Mohamed point boobu su leeru mës ci wax autour du pot di xaar lu l'occasion ça mais lu ñaar ñetti point yoy rek la kañ la fan la nu mu amee ak lan moy firndeel bi ki egg na ci yow mais Kader léegi lan lañ bëgg nga déglu ñu mhm. parce que sama temps de parole mom danaka jël nga ko maintenant lolu mhm. on a on avait l'occasion pour mu et je mhm. dirais pas que bataille peut-être amuñu parce que le juge mom moy jox le délibérer et il juge dans son intime conviction gis le procureur li nga xamné mom lay wax né mom la bëgg le juge n'est pas lié à ça oh. le procureur nous na demander la relaxe le juge ñëw corsé ko ne daf koy daaj fukki at le procureur mën na demander 20 ans ou plus le juge ñëw parce que le juge il est lié que par la loi légui nak dafa am lo xamné dafa teunk viol c'est pas spécifiquement qu'il nous faut une vidéo mhm. ou des audios mhm. pour que ñu puissions vérifier qu'il y ait viol ou pas mais dañ ci dafa bokkoon ci li nga xamné parce que aujourd'hui ku ci nek da ngay baser wu ci li l'avocat maître et la Diouf ak ñeneen ak ñeneen on a partout dégg ñu ne dañu am ay vidéo autant également ñu dégg du côté de la défense loo xamante ne gisuñu ko fa et li nga wax on aurait bien souhaité Ousmane Sonko taxaw wala ses avocats taxaw pour que yenn yi nga xamante ne Adji Sarr wax na ko fa mu mën ko balayer d'un revers de main su fekkee amul su fekkee ne dëgg la mu mën ko dëggal <laughs> malheureusement amuñu loolu keneen ki nga xam ne moom lañ doon xool dem moom rek la ñu am te mën leen a juger aujourd'hui mooy Ndeye Khady Ndiaye

ay petits mots wala ay cadeau yu ñagas yo xam ne daaw ko dégg ci sama nopp loolu la dégg démb mais amul leneen loo xam ne bes na ci maintenant euh, wax ji li ko li koy guddal yëpp dinañu analyser oui mais ki nga xam ne mooy tëggal gu gi mooy mooy le juge juge le premier euh, Quand à l'endroit bi nga doon wax mm-hmm. euh, Lamine wax na la ko sànq ñun il faut que aussi ñu ñu ñu ñu avancer ci suñu analyse on peut pas tout le temps revenir sur li tax mu dem fa endroit bi baaxul endroit bi dafa dafa salté xale ya fay fréquenté mais mais mais madame madame man endroit bi tes viol bi ça importe peu parce que mënoon na nekk ci all bi mënoon na nekk ci douche mënoon na nekk n'importe où mais li am solo moy définir fan la xewé xam nga dama la wax ñett yi man moy sama preuve pour wax ni am lu xew dama la wax ni la légui jour bi lieu bi ak lan mom mo ci génnee légui li doon neex moy ñu taxawoon Ousmane ni dem naa fa jour bi heure bi lieu bi Mohamed ba paré li nangam amul woon mais vu que élément yi dajé na c'était par consentement pays changé déglu rek li amna jour amna dem fa li mais c'était par consentement ou mo organisé le pourquoi ñu am rapport mm-hmm. bu tout va changer Attends, attends attends, attends attends, complot bi lay d'accord bu boobaa kon donné yi changé na. ndax kon Adji Sarr moom moo sàkku ak Sonko. d'accord comprendre bu baax. moy daw daw daw leral day hmm. indi lëndëm lëndëm te li tax man la barki dem fi Ousmane Tuure la. parce que su fekkoon àndoon na ak ay conseils. <laughs> li doon def mooy mu dem ci procès bi taxaw. mais on va continuer sur cette lancée sama ñaari sujet yi xam dama koy denj mais est-ce que tu parles non non on va continuer on va continuer sur ce débat mais bëgg na ñu avancer waaw joxal sa c'est important aussi xam nga la laa jàpp ne dem moo une reconstitution des faits Bir tribunal juge bi buy juger Il fait les juger à travers des preuves c'est important li nga wax